bari na waaye Gam Petrol yi ñoom ñu jël football bi ñu ne ñoom dañoo sponsor football bi so loolu tax moom mu toog fii baay bi tey moom mooy sec assistant secrétaire général NISA bi moom tamit mu bokk si panel bi ma bàyyi monsieur Jack euh, nga xam ne mooy secrétaire général bi mu wax ñu luy seen teewaay si dëkk bi. waaw jërëjëf maa ngi leen di nuyu seen ak seen sant di nuyu mbokku Gambie yëpp ñoom ñëpp li ko dalee si président bi secrétaire général bi trésorier général bi. d'abord je may commencer remercier ce Nizaï est NISA équivalent Sport traverse pour Dakar chaque année depuis trois ans nous dañ invité sur phase nationale Nous sommes sur une phase nationale nous avons ñun ce def anniversaire Yaya nous ñu nous invitation ñun Sénégal média tout le monde est au courant

si biir Sénégal am na ñoo xam ni man maa leen bind leetar wax leen est-ce que da ngeen di bokk ñu ni ñun bëgg nañu bokk wante koor gi moo ñu gàllankoor léegi nag bu ma demaatee dinaa bindaat yeneen correspondance ni leen dàq nañ ko ba après koor gi ñoo ñu naroon woon ñëw dañuy yokkook ak ñiy ñëw ragal naa ni 700 personnes bi ñu laajoon ñoom dañu am sax plus de mille personnes parce que loolu moo leen gàllankooroon donc comme que gàllankoor boobu léegi dañ na ñun ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax di leen remercier nag ñoom Nissa di leen remercier parce que chaque fois bu ñu ñëwee fii Gambie ñoom teraanga la ñuy yokk ñun dañu ruus sax teraanga boo xam ni wax dëgg yàlla ñun jiwuñu leen ko mais ñoom dañu koy delloo ba mu ëpp loolu moo tax man man si surtout président Tony Ndoye nga xam dafa am tuuti gàllankoor moo ma fi yebal pour ñu gërëm leen sant leen sargal leen tey ci suba jaar nañu ministère de sport kàddu gi benn la jaar nañu ministère euh, ki intérieur kàddu gi benn la donc ça veut dire que ñii ñu ngi liggéey liggéey boobu nak dama bëgg euh autorité gambien jappalé jàppale leen ñoom jàppale leen pour xamni ni ñii def am ci fulla am ci fayda Té ku organiser li du organisation bu ki bu ndaw ñun nak ñu ngi leen di gëreum di leen sant te bu boobaa bu soobee yàlla dinañu ñëw

ñun nag bu lii réussir ba pare ñun dañuy ñaax suñu autorité yi pour ñu def en commun accord Sénégal ak Gambie organiser Coupe d'Afrique 2019 te c'est possible te fii rek la mën a jaare euh, ci ba loolu am maa ngi leen di gërëm di sant. jërëjëf ah madame Touré dégg nañ monsieur Diack lu mu wax war na foofu lu important yow ministre ministre de la sport de Sénégal euh, ministre bi la ebal ministre bi nga toogal fii am na am na kàddu bu la ebal. loolu maa ngi nuyu Gambien yëpp Gambien yi nuyu sunu président Yaya Jammeh fekk ko fi wante yëg nañu ne que sunu ñëw fii yëg na ko yóbbante nañu tamit ay damay jëlaat. damay démarrer. waaw maa ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp euh, bi ñu ñëwee fii. c'est bon ñu ñëwee fii donc euh, euh, teeru nañ ñu teeru boo xam ne bii comme ni ñuy teeroo buur na laa ko mën a tudde ndax sargal nañ ñu yóbbu nañ ñu ci ministère yëpp loolu mooy wane ne que ñun suñu ñëw fii dañ koo teg ci fu kawee foo xam ne fii président bi nekku fii sax wante mel na ni mu ngi fi woon ndax ñëpp teeru nañ ñu teral nañ ñu te ñun dañu ñëwoon rek pour benn réunion technique pour xool nan dañuy ñuy organiser su euh, kii dimbalee waa NISA ci seen organisation bi ñoom ñi nga xam ne dañu lëkkalook waa sport travailleurs bu Sénégal man nag damay liggéey ministère des sports léegi mais ba tey maa nga ci sport travailleurs ndax may présidente jigéen ñi fa nekk donc maa ngi leen di yónnee tamit nuyoo suñu ministre muy Malick gàkku xam naa ni moom bu ko yëgee euh, dina ci def lam ca war a def yépp ci de euh, loolu tamit maa ngi jiital nuyoo suñu président de la république Macky Sall ndax moom mooy moom la ñuy jàppale ci lépp te moom xam naa ne diggante Sénégal ak Gambie ni ñu bokkee nekk benn nekk bokk ndey bokk baay defe naa ne dina ci taxaw lu lu wér a wér a wér a wér pour loolu continuer sax ba faaw donc organisation bi ñoo ngi koy rafetlu tey ñaan yàlla comme ni ñu ko ñaanee ni ci koor gi dinañu ñaan ci église yi ñaan ci euh, jàkka yi ñu ngi ñaan jàmm rek di xew fii di xew Sénégal euh, que sunu organisation bi tamit ñu mën koo comme àggale ci jàmm ak salaam bu koor gi jeexee ba ñëpp mën cee bég kontaan ci ndax loolu rek moom lañ ci jublu. jërëjëf madame Touré Baye dégg nañ madame Touré ak monsieur Diack luñ fi wax am seen kado bi rafet na lool ma bàyyi yow tamit nga am loo si wax tuuti jërëjëf euh, sa Diallo maa ngi jógee Sénégal nuyu Mr Michael euh, Gambia Petroleum ak yéen GRTS ci seen taxawaay bu rafet euh, démb la suñ gan yi ñëw jógee Sénégal maa ngi leen tatagal di leen wax ne bisimilah fii si Gambia Gambie seen réew la si seen ay doomi ndey ngeen ñëw ci seen dëkk ngeen ñëw léegi nii sax dañ bëggoon a organise tournament bi pour au Sénégalais yi suñ mbokk yi nga xam ne dañ leen daan fekki Sénégal di bokkaa ñoom seen teranga ñun tam bés bi ñu amee suñ bés bi ni muy July 22nd bi ñu oo leen ñu sawar si be moo tax ñu ne délégation bu rëy bi ànd ak Tony Ndoye pour ñëw Gambie fii bokkaa ñun celebration bi waaye li nga xam ne moo xew mooy ne yëfi weeru koor bi moo tax ñu daaxa ko ba beneen jamono boo xam ne ni dañ ko organise mu gën a rëy ni ñu ko buggee woon te su soobee yàlla ñu ngeen ñaan yàlla ñu ñëpp ñu yàlla dimbale ñu ba ni ñu ko buggee ñu amee ko noonu duñ euh, bàyyi studio bi te waxuñ ne euh, Sénégalais yi da ngeen jëf gàcce ngaalaama parce que yeneen nii sax yàgg nañ depuis 2007 la dañ daan dem Dakar di dem dem nañ fi Diourbel dem nañ Thiès. Mbacké dem nañ fi Mbacké you know dem nañ fi Ziguinchor. te yëpp si mbiru sportif la te ñu ne ñaari réew yi Sénégal ak Gambia moo war a nekk tàmbaliwaay bi nga xam ne ni moom la ñu war a tàmbali pour African Union pour african done benn Sénégal ak Gambie da war a commencé te tànk yooyu nii sax ak Sénégal sportif eh, travail bu Sénégal moom lañ taxawee bu ñu jàppale si loolu incha allah mbootaay bu ndaw bi ñu foog ne euh, ni mu tàmbalee tuuti na waaye mun naa egg fu rëy a rëy parce que jàmmoo si diggante peuple yi Sénégal ak Gambie bu ñu ko amee lu am fayda laa doon luy jëriñ ñaari réew yi la. te président ñaari président yi comme ni ñu ko waxee ñoom loolu lañ bëgg Afrique doon benn Sénégal bi doon benna ñëpp doon benn te loolu li gën a yomb pour am ko mooy sport so ñu nii sax duñ tàyyi pour gis ne sport am na diggante Sénégal. ak eh, diggante gambia su ko defee eh, su ñaari réew yi gën a xamante gën a buggante gën a jàppante lépp luñ soxla rek dina yomba te dinañ ko mun te diñ ko munee mooy ci wàllu sport soo jaat ak Tony Ndoye ak seeni délégation ñu ngi leen dalal jàmm Gambia ñu ngi leen a wax ne yéen a ngi fii seen réew bisimilah. merci All right, um, Mr. Bite, thank you very much. Um, just to remind you that you're watching um, uh, an update on the NISA Sub-Regional Football Championship activity, part of activities marking the July 22nd celebrations. Uh, I'm also pleased, uh, I'm also grateful to inform you that part of the delegation is TFM from Senegal. Our colleagues from Senegal, they are here taking every bit of the preparations and they will be here for the bigger events. And we are told that other TV stations from Senegal and other media organizations from Senegal will be coming to cover the, the, the, the, the, the, the events. Well, one company that is already chipping in, and chipping in big, is GAM Petroleum. They've already come, at, they've already, uh, they're already on board at the first time of asking to sponsor the football component of the event. The managing director is here with us. I will just allow, pass him the mic so that he tells the general public why is GAM Petroleum coming in and coming in big to sponsor the football. Well, <coughs> we at GAM Petroleum um, feel that the Gambia and the Gambian people have been so good to us